ayca mi ngi noonu nag jógee nañu rési sama réalisateur bu ñaawul boobu Samba Ndiaye ak sama caméraman di Diego euh, suñu gan yi yegg si nañu dañoo mën a tardé rek mu di Gawsu Mbeng ak ki nga xamante ne nii moo di daf may fàttali turam sama xarit Sidi. Sidi Sidi Mbeng moom. waaw kay Sidi kon Sidi Mbeng mel na ma ci euh, kon sama ñaari mbengeen yi yegg si nañu Aida nag moo yoroon kaddu gi dama koy bàyyi rek mu daane li mu doon wax ma daal di jox sama gan ay da nga ne li Sidi Ndiaye doon wax lan nga ci li euh, tegalee li ndax bala dafa laal foofu neex dafa ne bu njëkkoon dafa ne léegi dangay am sab soxna mu génn dem kër Aïda fekk Aïda takki or yor écran plat mu ñëw suñuy papa dañ doon lekk suñu kër yi mbaxal mu saf sàpp dugg sa benn kër xarit mu teg fa ginaar gu saf sàpp est-ce dëpp ne sa bàyyi na wuti ginaar déglu ma boo ma dégloo rek ma ñëw foofu la Sophie di waxee ne communication koo nëbbul biiram du la nëbb biteem. kon ñoom dañuy nëbbu ñoom góor ñi. waaw. ndax tey waaw nay waaw ah déedéet may leen ma tamit ma defar. góor ñi sikk nañ may leen góor ñi sikk nañ. leen ma ma développé. du forcément góor dafay nëbbu gis nga yor yor yor yor non xam xam lan la. xam li ma mën li ma mën a daan. tey du ma nangu Siri may ma may ma may ma ma yeggali. may ma ma yeggali may ma ma yeggali xam nga bu njëkk ba. déedéet bu njëkk ba da ngay ne yéen yow sànq yaa wax say kàddu nga ne euh, xale jigéen ñi xaalis dañ ma ne la ñun soxla wuñ ku dul ku ñu féete dool ñu bàyyi ñun papa la ñuy wër jigéen bi nga xam ne danga ko jël def ko soxna da nga koy tënk ci li nga mën ak la nga am. c'est ça ki nga war sa fukki dërëm. sama maam daf doon wax naan góor day yor fukki dërëm di dépensé juróom ñett denc ñaar dërëm ba ci biir poosam. mais loolu moo am. waaw waaye mais est-ce que da ngeen ko nangu. nangu dama ne la góoru léegi actuellement góoru léegi góor léegi góoru dañuy am salaire u cinq cinquante mille di dépensé cent mille francs xam nga waaw jël appartement jël appartement boo xamante ne cent vingt mille ay fay. te leer sànq yow yaa ne eh, ndimbale ma eh, sànq daf ne daf ne doo ko nëbbu dara daf ne jóor jigéen doo ko nëbbu dara loolu ngeen wax. léegi bu fekkee da nga yor juróom juróom di dépassé ñett dërëm ñaar dërëm yi nga denc ko nëbboo ko ñaar dërëm nëbb nga ko ñaar dërëm yooyu ndax lan boo génnee jur ankay góor ki mu gis nga gis nga jigéen xaar jigéen xam nga góor gën la bëgg góor gi nga xam ne daf ko wan la mu am la mu amul la mu mën ak la mu mënul la mu wax ak la mu war a xam la mu war a wax ak la loolu amutoo leen ci ngor loolu amutoo leen ci ngor déedéet yéen ñu ko wan yéen yéen ñu ko wan ah, gis nga xaar xaar gis nga gis nga gis nga jigéen jigéen ah, man gis naa sam benn copain boo xam ne mook mook mook corom ah, génn nañu cinq ans gëj ñun cinq ans barki démb lañ doon féetee seen euh, douze ans de mariage loolu nekkul dix-sept ans dix-sept ans de mariage ba ba léegi ñu ngi nekk ba ba léegi ñu ngi nekk mu mu neex loolu te kam wax la xoolal billaahi wallaahi taalaahi xale bu jigéen bi musuma woo na ma sama jëkkër def na ma nangam wala nangam ak nangam ku góor ki musuma woo na ma sama jabar nangam mag nangam xam nga lu gën a garaaw dañuy tëju seen néeg rayante bay bëgg a dee e bu ñu yeewoo ñooy nekk. waaye jigéen ñi tey jii jigéen tey jii koo ci ne ku la laaj ne la ah alaaji kat damaa bëggoon nga jëndal ma savon euh, euh, euh, naturel wala nga jëndal ma body wala naa nga mag wala sama diw jeex na nga ne ko waay muñal ma muñal ma ba nga dégg mu ne la muñ ba kañ dama muña muña muña muña muñ balla léegi Babacar ndax yéen da ngeen di nëbb nëbb bi gars yi di wax yéen góor yi da ngeen di nëbb non non nëbb bi nëbb ñuy wax xam nga la mooy problème xam nga la may problème bi Aïda. non xaaral Aïda Aïda xam nga la may problème bi. génn ci ligne ma wuy ma. wuy ma. foo ngeen déglu foo ngeen déglu ndax da ndax damaa war a jox gaw su mbéy nga mu dugg nañ may Babacar. wuy ma man man. dégloon tey nag nañ leen dégloon tey. petit papa du ma la déglu. man maa yore micro bi danga may déglu non petit dangay déglu petit du ma la may du ma la may dangay déglu noo day déglu day déglu dafay déglu non dafay déglu euh, petit euh, su ma la nee mayal kii mu wax danga koy may mu wax danga koy may mu wax sinon sama réalisateur da lay génne ci émission bi léegi ah, comme euh, Babacar mhm. tey li nga xam ne moom la ñuy wax ne nëbbu dafa am ndax dëggantaan yéen góor ñi da ngeen di nëbbu jigéen ñi. non non man man man gëw ma ne gëw ma ne nëbbu nëbbu am na parce que même bu amee du ñëpp. dañu man góob mooy généraliser ñu ñu ne ñu ne ñëpp ñoo yam parce que ni mu amee ci ci jigéen ñi ñoo xamante ni dañu dañu jëm benn côté noonu la amee ci góor ñi xam nga mais fii am ci ñoo xamante ni tey ci li ñu nekk ci ñi ñuy wax ne dañu dund ak dañu dund dañu dund relation 10 ans ba sëy ak nit ki ba am na ci ñoo xamante ni tey ñooñu ñu ngi nekk ak ñooñu ba nëga ni parce que li tax mooy que ne ci moment bi ñu nekkee ku ci ne da ngaa wan sa jikko sa morom mais tey gis nga bu fa nëbb am rek problème dina fa am parce que am na ñu ñuy nëbb yoo bu xasee feeñ jeex loolu kenn mënu tootu ko régler mooy que ne tey gis nga benn dama man nga nekk jigéen mu di la muñal ci ci benn ci muy lan amoo dara yoroo dara mu nekk ak ngay ngay après nga bëgg boole ko di loolu fan la loolu mooy mais tamit nag dañu waxante dëgg quoi ay góor lañu mais am na ci yu bari yoo xam ne la non non non. non Babacar yow ban ban monde nga ne. Babacar yow ban monde nga kii ban monde la ne. waaw mais kii waay waaw mais waaw waaw. bu demee bu demee ba góor ñi naan bu demee ba góor ñi naan eh, ah. du ma takk cas social y' a problème. bu demee ba du ma takk cas social y' a un très grand problème. ñoom ñoo ñu ko yóbbee. parce que ñoom ñoo aj seen i bëgg-bëgg. dinaa xamal leen dinaa xamal leen gis nga fii sëy bu neex mooy seen bëgg-bëgg dañ koo yamale et c'est valable pour individuellement gis nga nit ki li ngay dund il faut nga xam sa niveau de vie fan la toll nga bañ koo romb boo ko rombee yokk say bëgg-bëgg. man nangu ma te dinaa la xamal ah Sidi Ndiaye ah, léegi da ngeen may bàyyi ah, ndax dafa am ñaari question yoo xamante ne ni day dugg entre jigéen ñi ak góor ñi ndax tey ñi ma fi gis ñu présenté yëpp ku jël da ngay naan ah, man artiste la léegi te dafa am loo xam ne dafa laal yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci millier bi ndax dañu gis ne léegi tas gi ngeen di wax yëpp. ci yéen la ëppee muy que yéen ñi nga xamante ne nii siiw ngeen xam nañu leen am ngeen tur yéen artistes yi comédiens yi sax la ëppee nag waaw comme nag dañuy dugg non dañuy dugg rek dañuy dugg foofu nag laay digalee Gawsu Gawsu Mbengue tey débat bi ñuy waxtaanee tey mooy dañu gis ne léegi da ngay gis nit nga génn ak nit ki lu yàgg lool ngeen sëy du yàggul dara divorce am mu ëppee nag ci yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci milieu bi euh, lim ci ëppee mooy gis nañ fi benn actrice boo xam ne duma tudd turam may nañ ko fi ay millions yu bari euh, jëkkëram ne ko da ngay dem euh, dëkk ba mu ne moom du kuy sëyi dëkk ba mu jaral ko mu tas sëyam ndax tey noonu la sëy war a demee tey loolu indiwul gaaw a tasi wala ndax tamit ku góor ki waxoon na ko ca début ba ne ko war ngaa mën a dem sëyi dëkk ba. waaw maa ngi lay maa ngi lay nuyu dëgër musóor di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi ñëpp di siyaaraat ñëpp man damay wax nii euh, dafa am dafa am benn phénomène bu am boo ci affaire mariage yi donc c'est pas pour ci acteurs culturels yi wala ci musiciens yi mais ci secteur yëpp la. mais foo xam nga lu tax ñu wax loolu fa la ëppee. waaw na soo gisee ñu laal point boobu foofu la ëppee. waaw xam nga tax mu ëppee fa parce que ay hommes de média la ñu. mais am ñoom c'est des c'est des c'est des hommes de l'ombre kenn xamu leen et que ñu ngi am ay divorce yu ngand ngand ngand maintenant ñun comme puisque ñoo ne ci média bi donc suñuy mbir day siiw parce que suñu vie privée la ñu exposé mais dafa am problème bu am mooy tey damay génn benn kinne par exemple def na nu euh, cinq ans ci ci ci ci ci relation amoureuse maintenant ci biir cinq ans yi dama koy nëbb sama jikko mu nëbb ma jikkoom yàlla dogal ñu sëy bi nu sëy ñu war a muur kinne mu sëy si kinne am na juróom-ñaari bàjjan mais juróom-ñaari bàjjanam yi kii da koy jox yabee sëru nocc kii nuisette kii fer kii cuuraay kii kasetu porno kii nangam kii nangam kii nangam léegi. loo juróom da ciy am. waaw juróom-ñaari bàjjenu li nu yabee ndaw si mooy na nañu nday baay rakku jëkkër magu jëkkër xaritu jëkkër kon yow ak sa jëkkër ci kaw lal bi la parce que li ñu la yabee yëpp c'est lépp biiru néeg la amul leen lu génn ci biti. Ah, mais jëkkër jee takk jabar nag loole est-ce que du euh, normal. waa xaaral maa juróom-ñaari bàjjen ñëpp yabee la affaire lom te lépp c'est typiquement sexuel. nga sa jëkkër. waa xaaral léegi su la léelu lépp biir néeg la léegi man ma nëmb la sa jikko nga nëmb sama jikko ci ndoxaan gi ñu takkante maintenant suñu ay jikko loolu la juróom-ñaari bàjjen yabe moo koy coiffé ba du feeñ léegi su nee ba cuuraay yi jeex sëriñ na euh, saru naa lii ràpp darab ya barab ya bënn waaw léegi sa jikko génn sama jikko génn kase dee xoosu kase dee xoosu waaw léegi nag sa jikko génn sama jikko génn lañu ñu nëbbante woon nëbb naa leen la doxaankat laa ñu dem ba ci biir sama ndoxaan di feeñ yow nga nëbb ma ni jigéen ku salte nga nga nëbb ma ni jigéen ju mën a fen nga jigéen ju teew salaam man ma nëbb la ni jigéen góor laa gom te ni sàmba àllaar laa léegi su ñu demee ay ay ay ay six mois ci ci ci ci mariage day neex ñu dem sept huit ba un an nag jikkoy commencé génn sama mën a fen di génn kay tayalam di génn salteem mën a doxaanam ñàkk joxe dépense yooyu yëpp di daje et que koo nëbbante ca ba doxaanante kon nag lan lañ yabayoo looloo looloo nëbboon jikkooy mais bu jeexee jikkoy commencé génn. jigéen ñi daal ñoo sikk. ñaar ñëpp lan ñaar ñëpp nga ko ñaar parce que moment bi ñuy gé bi ñuy bi ñuy doxaanante dañu nëbbante suñu ay jikko mm. léegi nag su yooyu yëpp génnee bu ca mag ña jàppul sëy batas beneen bi mooy des fois tamit nan waxante dëgg euh, jigéen ñi dañuy dafa am benn classe sociale bu ñu yóbbu seen bopp waaw par exemple da nga ne ci ci yow yow yow sa rang social ci niveau A la toll nga yóbbu ko bëgg ko yóbbu B prime yaa ngi comprendre mais xale bu góor bi ñëw di la doxaan nga imposer ko B prime moom niveau rang social am ci aalo toll yow fa nga ne te nga yëgal sa niveau mais su gisee ku ko aal benn oto aal ko benn costume aal ko benn cent mille bu mu def ci poosam parce que niveau boobu nga ko woo ci la lay wuy si ba am la est-ce que comprendre mais nag dafal ndànk dafal ndànk euh, sànq petit papa dafa am lu mu dugal lu am solo mu ne yéen da ngeen naan doo leen takk camp social Euh, lan moo tax loolu. tey boo leen defee noonu ndax jigéen ñi dinañ fi jox waaw xam la moo tax duñ tàkk tey yow mënoo nekk cas social yow am personne yow kaa sociale nga. xam ma ne cas social mooy tey sa bëgg sa sa yow sa niveau de bi ci cinquante la nga bëgg ko yóbbu ci cent maanaam man su fekkee man sama sama dépense ci fukk juróom la toll su ma bëggee añee añu cinq cent maa ngi sonal sama bopp. waaw est-ce que du ma jéem a yamale sama sama sama añ ci fukki dërëm jéem a jël juróom xool fu ma ko dugal. moom waxeewut foofu de. waaw xaaral xam nga tey cas social mooy non sàcc mu film bi. si da ngaa sàcc film bi ah da ngaa waaw may leen ko non déedéet waa xaaral waa xaaral ma àggale xam nga tey xam nga tey cas social tey man mënu ma mënu ma nekk cas social ma takk kenn muy cas social yaa ngi comprendre waa xaaral léegi sama niveau de vie dafa am fu mu su ma takkaat di beneen cas social kon ñetti cas social ci biir kër gi la. kan mooy régler problème. léegi looy takk ah? dafa am lu dafa am am lu am dafa am lu am dafa am lu am ci affaire cas social boobu noonu kii wax na ko léegi bëri na ñoo xam ñi koy wax mooy ñi am benn jabar ba pare na su may takk ñaareel du ma takk cas social luñ ci jublu de un man mooy bëgguñoo teg bëgguñoo yokk seen bopp leneen luy wàññi liñ doon defal seen seen aaw. bëgg nañu am kenn koo xam dina am benn indépendance financière boo xam ni du doonaat charge bu tegu seen kaw loolu lu yanu maa laal neex a dégg la wala lu neex te dégg. lu neex déglu non non je ne suis pas d'accord avec toi am na si ñoo xamante ne ay xale ndaw lañu amaguñ jabar mais dañ ne duñ takk cas social. indépendante wala nekk femme au foyer. waaw man yéen wax ngeen wax ba ma nekk góor nekk ci religion war a am soxna naan cas social ak ñàkk cas social. non xaaral xaaral moo xam leen dafa am benn mbir dafa am benn mbir daa am benn mbir gis ngeen sëy lii la. jigéen boo nekkee sa kër baay muy yére boo ko amee bu sa baay amee ngay sol yére boo amul da ngay noppalu da ngay xëy tey nga ndekkee soos añee ceebu jën reere sombi nga xëyaat ndekkee sombi añee mbaxal reere nangam seen kër nga koy supporté sa kër baay boo demee sa kër jëkkër bu la joxee nangam bu la joxee lool noonu nga ne du ma ko supporté gis nga loolu la jigéen ñi war a bàyyi mais mais xaaral mais Gaoussou dafa wax ni gaw gaw Gaoussou dafa wax ni déglu ma xaaral Gaoussou dafa wax ni jigéen ñi dañuy jël dañuy yëg niveau bu ñu nekkul góor gi fekk si ko mais góor gi moo tooñ boppam non ankay moo. non non non. kaa ñu waxal dëgg mais soo may doxaan heure bu ma la seetsee nga wutal ma xaaju ginaar gu baax gannaaw suba nga wutal ma kilo kilo dibi gu baax. ma sëy si nga bëgg maa sombi daxin mewe ah. Eh, soo sëy wuru fa am gis nga foofu naxante xola xola eh nañu waxante eh nañu waxante dëgg xola eh eh nañu wax gawsu nañu waxante dëgg gis nga loolu. xolaase mooy mënuñu la jox ginaar tey suba njox la yàpp nga jàpp looloy continuer dëgër musoor man man wax man xamal man foofu dama ah. wuru faam diggante boobu xamul tax ça veut dire que yow da nga ko fekk ci ci lim lay woo ça veut loolu wurul continuer xam loolu fan la a yem loolu mission la booy dox mu war jeex mais wurul nekk loo xam ne eh, eh, eh, non non non non musoor non non xaaral xaaral dafa am man d'accord ma xam may leen may leen ma waa waa may leen ma may leen ma s'il waa may ma Sidi may ma waa may ma xam nga d'accord ma ay waa Aïda may ma. yow loolu liggéey séddoo man. man tey su ma déggee góor ñi naan bu may bu may takk ñaareel damay du ma du ma takkaat social damay wut jigéen ju ñuy ju ñuy liggéey ma man lu ma fayeeku bokk koog sama baay loo fayee ko bokk koog man dax loolu la diine wax. raison tu as fat mais fat parfaitement raison góor day liggéey pour c'est un droit. am na si droit man ku ma ñeewu sa aawo doon sa ñaareel. dafa léegi léegi tontu leen ci laaj bi may waaja laaj léegi waaw xaar leen may leen ma ba petit baba may ñu may ñu tuuti ñu am ma am benn laaj bi ma laaj léegi dama dama dama bëgg ñoom jigéen ñi ñu tontu ma ci li may waaj a wax tey ñoom dafa ci am ci ñenn ñu ma ko sañ wax. dañuy gis benn Siri Ndiaye c'est un ñu fexe ba lijjanti ba ba ba ngoroog Siri Ndiaye ba mu takk leen ñu encaissé fa lu mu gàtt gàtt benn 5 millions def fa un mois génn dal ci Bala Samb c'est un milliardaire ñu fexe ba dugg Bala Samb fexe ba lijjanti fa benn 5 millions ñoom it def fa un mois génn du 10 millions te ñu ngi koy gis à travers les li may xam ngeen ko bu baax baax ñaata jigéen ñoo fi dugg ci ay milliardaires même en moins deux ans. ñoom quatre mariages yom te ni koo ci tàppe milliardaire. loolu mooy laaj bi ma la laajoon sànq. on parle on parle pas de défense ou gis nga euh, tey jii xemem ni góor di xememee noonu la jigéen di xememee waa déglu ma may ma may ma ñëw waa déglu ma eh léegi góor bi ndayam toog mu takk kooku lan moo tax milliardaire bu ñu takk dem xooli ñu riis ñi leen takk lan moo tax duñ takk cas social yi léegi amul am ak ñàkk amul am ak ñàkk moo tax eh milliardaire boobu milliardaire boobu noonu gisul mais mais xaar eh milliardaire boobu mbëggeelam la gis gisul ay am amu keeg ñàkk ñàkk déedéet milliardaire gisul sax li may li may ndaw suus. xaar ah, waaw xaar ñii xaar ñii mais mais mais gawsu même gawsu même gawsu même. waaw ah, ci la la waa léegi gawsu. nee na la xaar waa mais xaar waa mais dafa ndàkk xaar xaar xaar xam nga lu tax. Ah, waaw ñaata góor ñoo fi say jigéen escroquer leen xaalis bu beex tàll bëri non bëri na du gis nga fi am da ngay gis góor goo xam ne tey jii amul dara ay nelawam doyul daraam doyul mu fekk benn ayda boo xam ne am na tuuti situation mu ne fa sarax defar boppam deux mu dem takk keneen ñëw teg xaar ah xaar gis nga. Ah. yéen autant que vous êtes sañoon ah. ay milliardaires ngeen. xaar gis nga bëgg-bëgg gis nga bëgg-bëgg dañ koy limité bëgg-bëgg. dañ koy limité te li gën a bon ci doomu aadama ah, waaw mais man maay wax eh. waaw ko fi ma ne. na dama takk kaas ñaareel boobu salaire ah. Ah, eh, man la waaja waxoon laay wax bin ne ko yow Samba dafa taxaw Bintu taxaw ñu ni Samba lan nga bëgg a doon mu suma su ma màggee bëgg naa doon ingénieur am xaalis tabax kër gu rafet. jënd oto yi rafet jënd yóbbu sama yaay màgg tab takk jabar ju rafet a rafet ñu ni ñu ni Binta soo màggee loo bëgg doon mu ne jabaru Samba xam nga man xam nga man lu ma gis man damaa gis waa Gawsu même ñëw gis nga même ñëw waaw mais ma ñëw waaw mais nañ déglante nañ dé waaw mais nañ déglante Gawsu. lan la Samba lan la Samba ingénieur laa bokk. Seyka Balla da ngay yor kaddu gi da nga non doo wax boo yoree kaddu gi yow waxal rek léegi waxal bul déglu kenn waxal rek. Gawsu mayel kii mu wax. c'est que le problème en est kii baat bi mu wax non baat bi mu wax dafa dafa garaaw bu sa jëkkër amee na ko bokk ak yow. yow mii jigéen boo amee yóbbulal sa kër baay. Aïda yow la Balla di di waxal nee na kàddu googu dafa diis euh, nee na sa jëkkër loo yow loo am nga bokk ak say lu sa jëkkër am bokkook yow c'est vrai loolu loolu la war a demee wala. waa mais euh, waa mais euh, waa mais yéen bu fekkee ne bu fekkee ne waa mais bu fekkee doo su ma ñëw bu fekkee ne bu ne carrément moom moom dafa nekk ci cadre boobu noonu di ko dundee léegi alors que ku góor ki nekk ci foyer bi nekk ak njabootam njaboot gi nga xam ne dañuy feebar dañuy xëy feebar euh, ay ay tolof tolof di leen ci fekk ay fayub courant di leen ci fekk ay fayub ndox di leen ci fekk yow nga am yóbbul sa kër baay moom mu am di la dundal yéen ñëpp mais pourquoi ça. ah mais dañ laa jox jigéen ki pour nga dundal ko Babacar. non non non bala bala bala man man gawsu gawsu takkee boo ko takkee mu ñu muur ko mu dugg sa biir kër yaa ko war a dëkkal dëkkoo woddu dundal. mais dafa bokk ci xel nga am salaire donte bu yéen ñaar ngeen bokk yam leen salaire kii di fay ko 300 ngay fay ko 300 sa yoon ci salaire am mais na xel xel mooy mottali man ku jigéen ki samay jëkkër bu dee fay ko 300000 naay fay ndox mi fay courant. mais am na lu sofi wax sànq am na lu sofi wax sànq aha waaw xaaral xaaral ma dugalal ko question gëstu. Gawsu Gawsu Mbengue da ngeen di déglu da ngeen di déglu tuuti da ngeen déglu tuuti. waa dañuy dañoo nekk ci fin bi euh, Gawsu Gawsu non non <laughs> defal naa ko bal toogal Gawsu dafa am lu sofi dugal xaaral ma ñëw Babacar Babacar maa ngi ñëw ci yow dafa am lu sofi dugal sànq wax nga ko nga ne da ngay ñëw. Euh, lépp war la ci kër gi nga di ko def yéen comme ni ko euh, kii joxe exemple seen doole du bari yéen da ngeen di lo yor lu yamamaay ngeen war cee mën a yor seen aawa comme ni ko Sophie waxee léegi yéen ngeen naat ci àll ba di doxaan parce que xamal la mooy problème bi waaw déedéet xaaral waaw bala xaaral xamal luy problème bi man mën naa yor salaire u cent yaa ngi dégg ci biir kër gi dama war a dama war dama ko war a def ci sama soxna mais est-ce que sama soxna may na ma jàmm jooju. mais bu la mayul jàmm da nga war a doxaar. pourtant des fois yow nga dugg sa bureau am fa estre ñibbi si daan naan tag au lieu ñu dalal la cim ndox jox la añ nga lekk bu suur dalal la da ngay ñu ñu fëgg la bu ñu la fëggul facture. jàmmal nan la xew bu nu war a dem ndawtal lu nu war a nangam wala bu ñu defee dara ci kër gi nga ñëw ñu lan def naa ci nangam danga ma war a fay. waa xaar leen waa a rek huit heures ba seize heures. de comment ta journée. ah yow di nga def yow di nga def coucou. yow def waay waay waa Babacar. non waaw waaw waaw waaw non non xalaat xam nga xam nga man man man dafa am ci lu ma bëgg a ñëwaat dafa am ci lu a ñëwaat. bala bala man dafa am. yëf luy coucou. Eh, eh, day baax day baax nga dem bureau. Eh, sa jabar nga dem bureau. petit va ta journée tu vas. loolu da damay tëj damay tëj ma man damay tëj man damaa a jeexal dootuma waxaat laa bëgg xam nga wax te duma waxaat jox ko jox ko jox ko dëgër sama maam nee na guddik sëy bëccëgu sëy lañ koy defee rek guddik sëy guddik sëy ci bëccëgu sëy lañ koy defaree takk saanu sëy sëy non man man man man non man xam nga laa bëgg a wax non man non man non man non man man xam nga laa bëgg wax man dafa am loo xamante dafa am lu ay da wax léegi man d'accorduma ci parce que xam nga tax d'accorduma ci gis nga waxuma la sax sëy mais dañuy wax relation partagée la man d'accorduma yow sa jëkkër takk la jël sa d'accorduma d'accorduma sa jëkkër takk la jëlee la kër ndayam ak kër baayam indi la ci biir kër gi lu mu am bokk ak yow après nga ne am ndayam ak sa papa nga koy bokkal te yow bu ñu lay muur doon la wax dèjà moom mooy sa ah, kilifa waroo génn sa waroo génn kër gi tàggu woo ba même boo génnee kër tàggoo ko lislaam rëbb na la après yow lu moom moom bu fekkee am na ngor gu toll ne jëlee la sa kër ndey baay yor la loolu sa ndey ak doon defal mu mu defal lépp lu mu am lépp ak loo am da ko war a partagé da ngeen ko war a bokk parce que relation sax relation sax a am na benn prof bi barke Serigne Babacar Si ma yaakaar ñoom ñu nii autant qu'ils sont nii toog xam nga mooy problème bi seen jëkkër xamal ay affaire kuku ay deuxième la xamal la mooy lan lan la ñu tal seen jëkkër mu nga ca bureau ba di dang-dang wala ca atelier mécanicien ba wala ca menuisier ba xama ñoom lan la tal diw la mu sol xew bi passé fan la ko jëlee cheveux naturel bi mu takk pensab bi mu sol daal li mu sol nangam sangam net ci whatsapp loolu la ñuy lijjant ba seen borom bu wàcc sax duñ ko tal yéen a ngi nii ban añ damay jox Sidi Ndiaye damay jox petit pare jox Sidi Ndiaye ñu tàggoo dëgg euh, li may wax c'est bien clair comment tu peux avoir ta am sa jëkkër wala nga am sa jabar guddi jot yow nga concentré sa ordinateur ne da ngay liggéey benn booy xëy di liggéey même pas un petit bisou booy liggéey non taxaw taxaw taxaw xaaral xaaral. est-ce que du yóbbu tubaab. non non xaaral xaaral xaaral déglu leen ma déglu leen ma dans un monde platonique quoi. non non eh eh eh déglu ma déglu ma euh, dëgër dëgër góor buy takk soxna. man li ma jàpp mooy góor buy takk soxna da ko war a takk pour moom mi pas pour yaay wala pour papa jigéen pour jëkkëram lay sëyal mais pas pour papa nii pour yaay est-ce que góor ñi xamuñu lan la jigéen ñi di daj ci waañ bi xale bi saa bi jeex na da ngeen may may ma jox ma jox Sidi Ndiaye mu joagoo mu joxe mu darngeel kàddoom ma tàggoo émission bi jeex na da ngeen di déglu nag ndax émission bi jeex na may leen ma ma jox Sidi Ndiaye ndax damaa war a tàggoo li ma bëgg li ma li ma bëgg a jeexale mooy lan parce que nit débat su amee il faut à la fin nga am loo ci tënkee tamal li ma ci tënk ci jàpp ko mooy il nous faut une redéfinition de ce que la réussite d'abord ci suñu société bi parce que bu dee côté jigéen ñi jàpp nañu am jëkkër ju la mën a yor mettre la dans le confort pour yow loolu mooy réussite benn ça peut ne pas être vrai peut-être mais man sama gis gi laay waxee je parle à mon à mon nombre ami beneen bi mooy lan moo lan mooy lan mooy lu baax est-ce que am oto mooy li gën est-ce que am oto moo war doon peut-être la fin d'une vie est-ce que loolu mooy réussite est-ce que nekkul amal njariñ ci askan wa nga bokk moo xam sa famille moo xam say jegewaal sa entourage est-ce que amal leen njariñ gënul jaadu ngay am ay otoog ay amalal alaleen man loolu laa gis ni mooy réussite pour man réussite u nit ki dudd parce que yàlla dafa boole ay famille yu mu tànn benn famille ci njaayeen wala jóobeen judduloo la fa bu la fa judduloo c'est parce que am na rôle boo fa war a jouer boo fa war a jouer moo xam ñëw pour rehausser le niveau de cette famille financièrement moo xam pour ñëw conscientiser la collective peut-être wala la conscience collective de cette famille moo xam pour ñëw pour joyante yenn rëq-rëq yi am ci famille boobu pour man yooyu mooy doon réussite mooy nga faatu ñu xam ne kii bu am woon ci dund gi mu ñaaw mais réussite pour man du am oto du dawal rek donc il ne faut nécessairement une redéfinition de ce que c'est que la réussite ci suñu société sénégalaise bi. je ñaari kàddu rek. mu euh, euh, tàgguwaale xam nga da am loo xam ne tey jii maanaam euh, jigéen ñi mayetuñ ko góor ñi maanaam seen lépp dafa war a mat. te gis nga muñ dafa baax ci doomu aadama loo muñ mu fekk la gis nga tey da ngay gis jigéen joo xam ne ñàkkul dara e mu war a yërëm jëkkëram ci yenn yu bari partage boobu noonu li ñu naan union fait la force mais dëgg la dëgg la góor moo war a yor jigéen ci lépp waaye tamit ñuy dimbalante te yàlla tax gis nga nekkatuñu jamonoy kilo ceeb 200 nekkatuñ ci jamono boobu fi mu toll nii àdduna bi dafa metti dëkk yi metti feebar yi bari boo nekkee jigéen nekk soxna en tant que soxna boo amee benn benn vie bu xaw a neex sa jëkkër amu ko nga la waaye dimbali ko te yàlla tax jàppalante leen dimbalante leen waaye doo fi nekk sévère ba bëgga a dee nekk nit koo xam ne lu ñëw rek nga tàngal parce que yow yaa yor nañ bàyyi loolu. jërëjëf Balla euh, Gawsu bu ma la joxee damay jox Sophie mu tàggool ci jigéen ñi léegi defal sa. waaw euh, di di wax kàddu bu kàddu bu mujj bu dul tàggoo bu mujj bu dul bu dul bu dul tàggoo waaw euh, li ma bëgg mooy ñun dañu ne ci société boobu il faut nit ki amal njariñ boppam d'abord mën a jariñ société bi mën a jariñ kenn keneen ku keneen ku ci xaj mais nit ku ci ne ci ñun ñëpp dafa am mission bu ñu fi bu ñu fi taxawaaj suñ mission dañ koy matale am ñoom te dañoo judd retraité beneen bi ci topp mooy man su ma laajoon sama avis concernant ni société bi di doxee il faut ñu ubbi école bante dañ ciy jàngale sëy pour jigéen ñi xamuñu nu ni sëy itam mënuñu ko. mën naa nekk de am te ni billaay seen jëkkëri ñoom tontil lañ ko def dañuy viser quatre milliardaires wala cinq suturé ca lañ cay suuti ubbi ca entreprise jàpp seen ñam bari na ci réew mi nanu xoolaat suñu bopp ñun jigéen ñi. te ba intérêt gi ñuy def Sophie yeen jigéen ñi da ngeen di tàggoo dama leen di jox yéen ñaari yéen ñaari jigéen ñëpp ngeen tàggoo ndax dafa mel ni euh, góor ñi sotal nañu leen bari woo leen mais wane ngeen seen bopp macha allah Sophie lan ngay wax góor ñi. waaw li may wax mooy que ne euh, fi mu ne nii jikko yi jikko yee sange muy si góor ci jigéen li ñu war a def mooy defaraat jikko yi muy góor balaa ngaa duggati ci jigéen bàyyil ba xam ku jigéen ki ngay dugg ban la. ak nu mu mel ak boo fekkee dugg nga si moom tam wan la ci ko ba xam ne ko ana muñ nga muñal ko moom ku jigéen aussi la même chose parce que jamono ji jigéen ñi ñëpp amee nañ guwaatar ñi amee nañ kaase ñii dee nañ te góor a leen ko teg na xar yooyu góor moo leen ko teg barki arxuaan góor a leen ko teg jigéen ñaa ngi dang-dange jigéen ñaa ngi daw foo dem léegi marché yi fépp jigéen ñaa fa te lu ñu am ñëw toog seen seen seen jaboot léegi nag gawsu gawsu li may wax mooy li ma wax mooy il faut que ñu defaraaj jikko yi bàjjen yi di yëpp tamit bu ñu la yeb ci sëy bu ñu la wax naan ay boo soo demee boo gisul loo xam ak nañ la kii mayuñ la nit ak mayuñ la ay mbaam ak nit lañ la may loolu nañ ko bàyyi loolu nañ ko bàyyi loolu dama ko seetlu lu bari lu ñuy muur dañ koy wax naan boo demee boo gisul loo xam waññeekul sa kër a nge nii wala buñ la wax ko góor carrément mayuñ la mbaam nit lañ la may gis nga sey bu xasee ba am am na sa sëy dafa sensible néegu sëy dafa xat dara xaju fa il faut que ñuy waxtaan suñu biir di diisoo wasalaam. ak moo gis donc dañuy dañuy dañuy wax que tàggoo nga ba pare. ah DJ euh, wool ma réalisateur mu génne ba dafa mel ni baax na donc di wax ne ça a été un grand plaisir pour partager ak yéen débat bi nga xam ne moom ngeen doon wax. peut-être wan ngeen ma que ne la responsabilité na dépend pas de l'âge parce que mënoon ngeen su ma waxee ngeen arrêté ma wala leneen mais defoo leen ko donc juste rek pour waxaat que ni ñu gën a waat euh, suñu bopp xel te ñu gën a bàyyiwaat suñu bopp xel te xam ne lépp loo xamante ne wax nañ ko fi en fait ñu si génnee valeur donc dañuy jëmmalaat valeur yooyu noonu ay ngor dignité surtout respect aussi respecter suñu kàddu parce que toll nañ ci jamono joo xam ne nit yi léegi respecté tuñu seen kàddu euh, fidélité amatul sincérité amatul donc bàyyi ci xel bu baax a baax xam ne nag képp koo xam ne moom la la yàlla booleel da nga koy jàppale nga ànd ak moom ci sa jikko te xam ne nous sommes complémentaires sànq nag ñu ngi doon wax ay voilà du ma sëy ak kii ndax xaalis wala leneen mais yonent bi sax bi muy wax en fait ngeen tànn na loolu la wax bi jamaalihi bi maali bi jamaaliha bi maaliha et autres donc ñu waat ci xel bu baax a baax a baax je pense que l'essentiel a été dit lépp loo xam ne wax ngeen ko jàng naa si yéen tamit voilà quoi yal na yàlla mottali incha allah. ñu day waxaat lu rëy rek. waa salaamaaleykum waat beneen yoon et di jaajëfal ñu ma bokkal plateau bi yëpp ndax tey am na ci loo xam ne jàngaat nañ ko ci xam nañ ko ci te dina tax ñu da gën a defarawaat suñu toogaay mais man lenn rek laay wax et sama sama góor ñi laa koy waxaal nañ leen ñu yërëmaat nañu leen ñu yërëmaat yërëmaat leen ñu te xam ne kër. mënut a baax te jigéen nekk fa comme kër mënut a baax te góor nekk fa nañu leen xoolaat defaraat toogaay bi man dama ne man xam nga kañ lañ perdre suñu valeur yi ba keroog ñuy takk sëy te jigéen toogul góor toog ca jàkka ja keroog lañ perdre suñu valeur yi. parce que foofu buñ toogee ba déglu xutba bi xool ni ñuy takkee sëy dinañ xam ne sëy yërmande la uuf la muur tënk gis nga ànd. ku ko yërëm mu yërëm la jigéen ku ko yërëm mu yërëm la jigéen ku ko suturaal mu suturaal la jigéen ku ko taatagal mu taatagal ko jigéen ku ko taaral mu taaral la ndax dañoo bëgg waaw góor goo xam ne ci ñun ci góor rek lañ ko mën a amee kii jëkkëru diw la ñëpp ko bëgg fi diw mee di dem jëkkëru diw la wala diw mee di dem jabaru diw la ak ñu ko bëgg mais ngir loolu am il faut que ñu defaraat suñu toogaay royaat ci maam yi xoolaat te xam ne nag la ma waxoon laay waxaat rek dem liggéeyalu ma ngir benn góor. lu ma liggéey rek sama waaw man man damay sant ñëpp di leen gërëm di wax ni vraiment am na solo am na njariñ jëlee nañ ci di wax ni góor ñi nañ bàyyi xel jigéen ñi ussi nañ bàyyi xel merci man tàggoo naa loolu laay tàggoo. Babacar waaw di kontaan bu baax a baax ci li nga xamante ni moo di ci débat bi dëgg waaw man bu ma amee leneen lu ma ci waxaat mooy que ne comme fi gars fi gars yi daanee la rek laay mooy. Eh, suñu xoolee ñun ñëpp mooy que ne problème mu jikko la ñu am pour man mooy tax suñu ay say yu ci bëree bëri te pour man bu yaakaar bu fekkee dem nañu ba ba taxaw di trouver loolu ñu ku nekk di taxaw di wax ne lii la lii la pour man ñi ngi bëgg a xam li li tas suñu ay say quoi euh, li ci des mooy que ne ñu ñu fexee jàppante parce que ku nekk xam na ne même yonent bi sax bi muy wax dafa wax ne euh, góor mooy kilifa jigéen euh, kon yaakaar naa ne góor ñi dañu yërëm jigéen ñi aussi tamit jigéen ñi tamit dañu yërëm góor ñi quoi waaw kontaan naa bu baax euh, ngeen may ma ma tàggoo. ah couple baa ngi xuloo ñu ngi couple ñu ngi ay couple la ñu ngi xuloo. moo may fay. di fayeeku mu bëgg maa takk deuxième femme ndax aawam liggéeyut. man xoo eh man xoolama salaire am. eh dëgër man xoolama salaire am. man mosuma laa teg bët danga maa teg bët. kan moo may fay man. si Demba Fagué mi ci jawaar borom lom lom au bonnet carré moo may fay lijjantiwuma la yow ah lijjanti maa tax nga teg ma bët lan moo tax nga naan ma ba guddi da nga maa menacé ba guddi soo jàppee dama laa war a takk yow yow waaw danga teel ma ñaar ñi bala ñu fee songoo ndeke émission bi mujjee naa ala daw me ndax ñaar ñi nga xam ne ñooy génn doon ko laqatu mujjee naa feeñ ku ci nekk yaa ngi xas sa morom di ko yekk lu mel ni xeme euh, travers émission bi kon jërëjëf Gawsu ma daal di tàggoo di leen di kontaanee bu baax naan leen waxtaan bi amoon na solo kàddu yi génne na fi gis naa ne a tàngoon na waaye njariñ it génn na ci kàddu yi gis naa loolu kon jërë ngeen jëf laa leen di wax ma leen di dolli rek ne góor ñi dañoo war a muñal ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi yor leen te yàlla rekk tax ndax jigéen buñ la ko biñ la koy jox dañ koo muur teg ci kon matul teg ci bañ la koy jox guddi la kon kooku dañ na la téye ko téel ma ku jigéen ki nga yërëmal ma ko yiiral ma ko dëkkal ko dëkkoo ko waaye nag wax dëgg yàlla gis gisuñu fenn fu ñu bind ne jigéen dafa war bu yoree bokk góor déedéet jigéen bu yoree na téye a ah, man de sama mbooja fara barak moo ma ko jàngal danaan ma teel li nga yor jox sa ndey lu ma yor bokk ak yow kon góor dëgg loolu nga war a def dangaa war a yor dangaa war a yor waa maa ngi ñëw de da ngaa war a yor sa jabar te yàlla rek tax jigéen ñi tamit ñu bàyyi bëgge gi waaw ak tiit bi ak yaakaar ndax loo gis lu nekk rek yaakaar moo ko sanc ndax da ngay gis ñoo xamante ne nii dañuy gis benn DJ Godé dem ñu yaakaar ne mi ngi yor àdduna ak la ca biiram ñu topp ci ginnaaw jaay ko intérêt DJ it daal leen di dund intérêt takk leen boo ñëwee ci kër gi gisoo fa la nga doon yaakaar doo fa toog sa sëy day daal di gaaw tas kon liy tas sëy yi lu bëri loolu it bokk na ci kon dama ne dama ne góor ñi góor ñi nañu nekk maam Mor Anta Sali jigéen ñi nekk Soxna Dia jaara su ko defee mu daal di neex sëy bi mën a neex jëm ca kanam maa ngi leen di jëfal di jëfal bu baax sama caméraman di jéggoo sama réalisateur bi nga xam ne moo di Samba Ndiaye jërë ngeen jëf ñu leen di jox dig daja rek ba beneen yoon ci seen émission njàmbatu askan bi tëj na